nag ñu to ñu dugg ci jikko yi nga xam ne moom la nit ki war a làmb gis naa ne li ci jiitu ci jamono ji rawatina mooy yërmande yërmande lenn la ci principe yi lal yoon wi mooy lenn la ci jikko yi nga xam ne dafa lal yoon wi te sëñ bi léppam ci yërmande la tegu te fi ne nii xol yi wow nañ lu yërmande ñàkk na doomu aadama ji jël jeeseem wala fitalam ne ko tëll nit di ko xool loolu ñàkk yërmande foofu lay foofu la mën a yem yor sa jeesi tiim nit di ko caw muy yuuxoo ka def wér ki ngay ngay caw rek loolu yàlla yàlla leen musal ci xol bu mel noonu foofu la yërmande yem loolu nag li ko war mooy xol yi ñoo wow nit ñi amatuñ yërmande kenn ku ne sa bopp rek nga tànn ak nooy amee ak nooy fexe ba dund amatu yërmande ci kenn wala ci lenn te nag suñu yoon wi moom yërmande ko lal l'islam jëpp sax la te yërmande moo lal l'islam yonente bi yàlla da ko wax ne ko li tax ma la yónni mooy yërmande nga nekk yërmande ci jaam yi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina mooy dama bëgg yërëm jaam yërëm jaam yi moo tax ma yónni la yow yow sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te bëgg see sayidna muhammad loolu jullit ñëpp war nañ koy dund bala maa ñëw ci sëñ ak nim làmb woon yërmande ak murid yi ni mu leen koy digal ni mu leen ko digalee damay njëkk a wax sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci giiru dundam wër kenn ngir teg ko yoonu lislaam amul ñiñ ci wax ku mel ne sayyidina Maïs wala ñenn wala soxna soosu kenn ku ci ne yaay ñëw ci moom ne ko man dama def lu jar rey bëgg nga rey ma am na soxna soxna daa ñëw ci moom ne ko man damaa njaalo bëgg nga rey ma am na sax koo xam ni góor loon ba mu ñëwee wax ko yonent bi ko yow pour da rek sa loxo defoo dara am na koo xam daa ñëw mu ne ko xanaa julliwoo fii mu ne ko mu ko demal danaa wax ne man ku fi ñëw ne ma teg ma daan yoon yoonu yàlla wi naa la ci teg waaye képp ko yàlla suturaal sa kër na nga sutur na nga suturaal sa bopp bu fi ñëw di di di weedi sa bopp tax soxna si bi mu ñëwee dem ba ba am doom diru juróom-ñetti weer yonte bi soñu ko ba mu ba am doom moo ñëwal boom ci yonte bi ne ko dama bëgg nga nga teg ma li ci yoon wax yonte bi ne ko doom ji xaa doo fi bàyyi da ngay dem ba ba mu fer bokk waa soxna sa dem diru bépp du ko soñ ba na doom ja fere mu ñëw mu ne ko da ngay xaar ba mu ba mu dëgër du ñëwaatee ci yonte bi yonte bi ne ko da ngay dem ba mu dëgër doom ji waaye doo fi bàyyi nii ginnaaw ba ba mu gisee ka nga xam ne moo ko wax ngir mu boole boppam yonent bi da ko wax ne ko nga ko yërëm rek bàyyi ko bañ ko wax mu ñëw di bëgg ñu ko teg daan yoon yooyu yoon li ci yoon wax boo ko defoon yàlla yërëm la ci la waxee ne xamu man fil ardi yarhamukum man fi sama rahimuuna yarhamuhumur rahman mais dee leen yërëmanti su ngeen bëggee yàlla yërëm leen dee leen yërëm ñii ci suuf doomu aadama yi nga fi nekkal ak li fi suuf yépp ne ñi yërëm ñi yërëm yàlla leen di yërëm kon kooku yërmande ci la teg léppam mas nañ ko wax moom yonente bi ne ko yéefar yii di la sonal guddeeg bëccëg ñaana yàlla yàlla rëbbu leen wala yàlla wàcc ñoom bëggoon mu mett te yow loo doo ñaan yàlla def ko mu yëkkati loxoom ya ne leen man kat innama bu'istu rahmatan wala la anam yalla dama yoni mu yermane ci jaam ni nek mo fi di rebb nit ñi ak len leen sëlbu ak ñaan yalla duma len déedéet am na ñu wax saqif saqif mooy ñu nekk tayif taayif ab dekk la bo xamni ni ñu ay nijaay mom yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni yoonte bi nek na makka fukki at ak ñatt di wote kenn top ko bu pare ñu di ko doyadal guneh, gune daana genn dem ci pénc ma ñu dab ko wop suuf xep ko ko ci bobbi mu ñëw ci kër gi ay doomi yu jigéen di ko ko faxasal wa kër gi di jooy waaye di leen di wax ni loolu du dara ñi dañoo xamul rek bi ko loolu mettee ba mett nag dafa dafa dem dëkk bu ñuy wax taayif taayif ba mu fa demee te leen wax ne kat yéen yéene samay mbokk waa makkan yàgg naa fa di leen woo ci lislaam ñu bañ ba bëgg nag yéen ngeen xam wax leen li ma yàlla yoon ngir ngeen topp ma leeral leen la la yàlla wax lépp mooy ngeen def lu baax di ko jaamu te bàyyi lu bon ba mu waxee ba àggal fekk boobu magi penc mi magi dëkk bi la la dajal ci penc mi magi dëkk bi ne ko sëñ bi di ngay wax daal dara loolu lañ ci du ci ànd yow duñ yem ci loolu yéen tamit di leen wax sax am leen bu leen ko wax waa Màkka mooy fa mu jógee mu dëkk ñu ne ko loolu duñ ko def danañ fa yónni ndaw ne ko yow ñëw nga fi bëgg na topp la te topp na la yemul ci lolu ñu boole ak waa dëkk bi gone dëkk bi ñu di ko sànni xeer ba gaañ ko xaañ ko deretam di tuur bi mu génnee yàlla dafa yabal la jibril mu ànd ak malayka malayka bi nga xam ne moo yore montagne yi malayka bi ne ko man de yàlla jox na ma ndigal ci doomu digal tey ma def ko bu la neexoon mon ñaari montagne yi yi séq dëkk bi mën naa leen a boole rek dëkk bi maasaloo yéen bi ne ko man de jéggal naa leen allahumma ghfir li qawmi fa innahum laa ya'lamuuna jéggal naa leen ndax dañoo xamul rek bu ñu xamoon duñ ko def waa saqif googu bi demee bi yonte bi demee ba am doole ñëw ci ñoom dem ba diggante jullit ñi ak ñoom di xeex xam ngeen ni am na ci jullit ñi ñu ko wax ne ko dëkk bii de ñoom dañu yàgg doy waar léegi danga war a ñaan yàlla yàlla faagagal leen waaye yonte ba daal di jublu penk yëkkati ay loxoom ne allahumma hdi saqifan waati bihi muslimin yàlla yàlla nga génne waa dëkk bi ndax dañoo xamul rek yàlla nga leen def ñu ay jullit teguñ ci ab diir ñu ñëw ñoom ñëpp jébbalu gis ngeen dëkk bi mu nekkoon muy waa Màkka nga xam ne wax na leen lu ne def nañ ko ko daana ñëw maanaam yi yàqu ci kër yi waa seen tur yeeg yu yu yu doy waar yëpp danañ ko dajale ñëw di ko sotti ci kër lu ne daanañ ko ko def ñooñu bi nga xamee ne dem na ba am doole dañ ko génn dëkk ba xam nga mu gàddaay dem Madina ba mu demee ba am doole ba ñëwaat fa da leen dajale waa dëkk bi ne leen waaw yéen lu ngeen yaakaar ne moom laa leen di def ñu ne ko yow day sunu mbokk nga te ku baax nga doomi waa ji baax ngay mu daal leen wax moom yonent bi ne leen izhabu fa antum tulaqa jéggal naa leen ñëpp dem leen topp ma leen dara kooku mooy yonent bi sallallahu noonu la doon doxe yooyu mën naa ci indi misaal yu bëree bëri waaye waxtu wi moo ko dut maye am na benn waay boo xam ne ci yéefar yi bokkoon mas naa fekk yonent bi ci genn garab muy nelaw wékk jeeseem waa ji yoot ba jël jees yi daal di yeey yonente bi ne ko waaw tey kan moo la mën a musal ci man waaw ma door sa door la jees yi yonente bi ne ko yàlla rek yàlla daal di daal tudd yàlla ni allahu wax ko ca kaw nag waa ji tiit di lox ba jees ji rob yonente bi jël jees yi ne ko waaw yow kan moo la mën a musal ci man mu ne ko nga dimbali ma rek waa ji yonente bi daal di koy jéggal yonente bi dama bëgg a xam ne moom yërmaane lamboo loo fi ñoo fi gis ci ñu ñu yor lislaam di ko taral ak a dóor nit ñi ay bomb ak a maasale loolu du lislaam lislaam diglewul loolu